ay ca salaamaaleykum mbokk internet wasaare TV rawatina waa wasaare news ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal comme ni ñu leen koy defalee chaque jour ci seen revue des titres commencé ko ci le témoin quotidien selon le collectif des avocats du fils de maître Wade ki nga xamante ni ni moo di Karim Wade libéré nañ ko ba am na droit euh, nekk candidat candidat fële ci élection 2024 yi bu jógee foofu dañuy dem ci ki nga xamante ni ni moo di Racine Sy euh, kii di Racine Sy di euh, patronat tourisme hôtellerie affiche les chiffres du désastre nee perte na li ngeen xamante ni nii euh, moo toll si trois cent cinquante milliards euh, ci Covid 19 bi. Sud Quotidien, gestion des inondations, commission d'enquête ou autre mission d'information parlementaire, l'Assemblée au secours de l'exécutif qui nga maintenu mon dit de Karim Wade Bataille, tey permettre nañ ko pour nous déposer candidature li nga maintenu mon dit liste électorale yi bu ñu jógee foofu dañuy Covid 19 au Sénégal 85 des ménages impactés. Walfou Quotidien qui di Souleymane Teliko du présent l'UMS personne ne peut m'intimider Bonjour, jugee foofu dañuy dem ci ki nga le ni de ici. c'est tanière des lions les nouveaux chantiers de CIC, l'évidence que va le euh, plan national d'aménagement et de développement territorial Que vont-ils changer Question posée. Euh, Bougan sur la tentative d'intimidation du président de l'IMS Telico, Télico, vous n'êtes pas seulement un Télico, qu'est-ce Bunjige Fordani Demtikinga Hamantine de direction de l'ASECNA. Pourquoi Mohamed Moussa a été réélu Source A. Morcellement de 20 hectares du site du hangar des pèlerins à l'aéroport Léopold Sédar Senghor manam li nga xamanteni ni di 57 parcelles euh, mi ngi en jeu mi ngi en risque bu njëgee fa dañuy delluwaat ba tey ci nga xamanteni ni di Karim Wade ak euh, ci euh, dépôt candidature un manque de courage. tribune ba tey dañuy des ci Karim Wade mi nga xamanteni ni mi ngi war reprendre combat bi jëmele ko ci wàllum élection bi bu njëgee foofu dañuy dem ci ki nga xamanteni ni moo Yerim Yérim Sow qui euh, bi nga xamante ni mi euh, justice arbitrale bi enquête droit civil retrouvé fin d'exil pour Karim qui nga xamante ni Karim euh, libéré nañ ko may nañ ko autorisation de mu poser candidature li nga xamante ni élection 2024 troisième mandat bataille tey ñu ci des ak ki nga xamante ni président Macky Sall las ba tey des ak qui ci Karim Wade Karim ressuscite par ses avocats euh, bu ñu jógee dañuy dem ci euh, li nga xamanteni Covid 19 di impact bi le patronat du tourisme demande une amnistie fiscale plus de cent mille cent

gannaaw euh, bañ ko bëggee woon rey gannaaw ba mu génnee doon wax li nga xamante ni moo jëm ci wàllu mënu mi ñu dem ba tey euh, ci trafic de drogue un grand dealer tombe avec 750 grammes à Mbacké Vox Populi bataille ñu des ak Karim Wade jëmele ko ci walum élection bi euh, nee nañ euh, wax dëgg yàlla Karim a retrouvé son droit d'être électeur depuis le 21 août 2020 ki nga xamante ni euh, modi di Abdoulaye Gallo Diaw di membre ci feulé ci bureau politique PS nee na li nga xamante ni moo PS fonctionnaire comme num ko waré lu ci à travers ay groupe WhatsApp l'info secteur touristique et Covid, 350 milliards de pertes d'exploitation bu jógee foofu dañuy des ba de ci li nga Covid 19 bi lu 85 des ménages subir nañ ay pertes revenus yo xamanteni wa ANSD ñoko firnel la bu dañuy dem chambre de commerce création d'emploi di

tenho de wa ASP yi nga regroupement le 28 septembre. Libération ba ñu ak euh, Covid 19 impact du coronavirus sur le bien-être des ménages au au Sénégal les chiffres de la crise ba ñu ñu gis 30 des chefs de famille yo xamanteni ni jot 85 des ménages yo été ni seen seen dafa ak ñi nga su soutenir jël leen charge gannaaw ba ñu ñàkkee seen liggéey les échos différents avec Centel GSM ñi nga xamanteni ñoo di wa Interface ñu ngi réclamer le toll ci 8 milliards de francs CFA ñi di wa Sonatel ak ñi di wa Espresso fële ca Malika ben incendie mo fa am ben tout tank bu am ñaari at mo ci ñàkk bakanam ganna bam mu doon euh, nelaw ci néegu yaayam euh, fofu daal di tak mu jot fa bu dañuy dem ci ki nga xamanteni ni Sonko mi ngi assurer ñi nga xamanteni ni ñoo di partisan mi néna du leen tey du leen mës a décevoir te du du mës a def lenn loo xamante ni da leen di tuutal. critique Karim Wade is ki nga xamante ni moo di Karim Wade di doomu maître Wade ñëwaat na euh, bu ñu jógee dañuy dem ba tey ci Covid 19 le Covid 19 fléchit au Sénégal. le euh, toll ci 167 patients faj nañ len dem waye lu tollu ci trois jours boobu batay victime jottu sé am bu ñu jógee dañuy dem ci rapport américain sur le Sénégal ki nga xamanteni ni moo di Thierno ak wa CIE ñu ngi jéem a recadrer di département d'État le quotidien du espoir stade amicaux des lions leen ñi mu mbay ñaw ki nga xamante ne ni ñoo di waa Sénégal défense SOS latéraux euh, Chelsea visite médicale avec succès ki nga xamante ni moo di Mendy mi ngi à la conquête de l'Angleterre ba tey ñu des ak yéen ci seen revue des titres ak record ñaa va changer d'air ki nga xamante ni moo di Ismaïla Sarr gannaaw bi ko waa Liverpool proposé wu transfert 25 milliards ak salaire u quatre vingt milliards euh, mi ngi wàcc pour dem fële ca Liverpool ba tey dañuy des ak ci Liverpool ñi nga xamante ñoo di waa Liverpool ñu ngi laaj est-ce que pare nañ pour jël Mbappé sans dépend ci Mané sala wala Firmino euh, ba tey transfert euh, jëmale ko fële ca Chelsea ki nga xamante ni moo di Mendy pare na pour dem fële ca Chelsea gannaaw bañ ko proposé déposé 16 milliards réew mi quotidien sport plus ba tey ñu des ak yéen ci Ismaïla Sarr ki nga xamanteni moo di Aston Villa euh, dafa bëgg a doubler ñii di waa Liverpool jëmale ko si Ismaïla Sarr ki nga xamanteni ni moo di Edouard Mendy gannaaw bu mu defee visite médicale am fële ca Berlin ba pare transféré nañ ko fële ca Chelsea. Euh, transfert de Koulibaly le PSG propose un prêt avec obligation d'achat ba tey ñu des ak yéen ci revue des titres ak sunu lamb Abdoulatif Ndiaye di conseil communication Matar Ba nee na lii di CNG ñu ngi koy jéem a réinstaller pour am euh, mandat bu bees bu ñu jugee dañuy dem. ci benn mor bu ñuy wooyee bébé Diène gannaaw bu ko police jàppee ci wàllum drogue ak wàllum phobie euh, ba tey ñu ngi des ak yéen ci suñu laam ki nga xamante ne nii moo di Bombardier en 2007 nee nañ ki nga xam moo moo di Gris Bordeaux moo njëkk a nekk VIP bu laal 100 millions de francs fa mu ngi noonu mbokki téléspectateurs yi loolu lañ leen indiloon ci seen revue des titres di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah.